Aynou Mady TV. sa yitte yow taaliba Cheikh Sidi Ahmed Tidiane bi man Oustaz Habib li ma lay wax mooy télévision la boo xamante ni sa yitte na nekk ci moom sa abonné na nekk ci moom waaye sag njàppandal na nekk ci ñu moom ndax lan nga bégale ko Maulana Cheikh Sidi Ahmed Tidiane. وتغفر

mbokk julit yi ci adina yëpp wërngal képp seen mbokk Abdou Faty Niang moo ñëw fii ci sanjara ànd ak télévision bu mag bii di aynuma di TV ñëw ci ziyaara bu mag bii di ziyaara yawma asura ñu fekk si fi góor yàlla goo xam ni tabaarakallahu kenn dootu ko présenté ci àddina muy alxaaji Daouda kamara radiallahu taala anhu wane na gannaaw dëddu na waaye wala taxsibanna allazina xutilu fi sabilillahi amwatan alquran nee na góor yàlla yi dañuy làqu waaye tey jii lañu ñu mënoon démb tey lañ ko gën a mën seen njaboota leen fi wuutu ñuy ziar imaam Ibrahima Kamara ak ay rakam waaye tabaarakallahu góor gi amoon na ay doomu ruux am na kenn ku taxaw ni suñu wet ñu koy wax alxaaji fallu ngom fa tabaarakallahu ñu tuje ko sunu maam fallu mbàkke radiallahu anhu waaye alxaaji fallu ngom tey nag dañu bëggoon xam taarixu ziyaara bi ci sànjara ak nga wax ñu lennet ci góor gi nga xamante ni موم وارال زيار بي دي الحاج داوود كامارا رضي الله تعالى عنه الحاجي فالو السلام عليكم اعوذ بالله سامي العليم والصلاه وسلام على اشرف المرسلين سيد الخلق غاتم النبيين وامام المرسلين صلى الله عليه وسلم مبوكي جولي جي نيغي سيار نييب دي گرم نييب تيواي رافتنا سيغ نياغ نيغي لاي سيار باخ ياغ وا تيليفزيون بي ييب مو ملني ليغا ني لاج بو نكو لاجي دانتي ساورا واخ ndax damay wax ni imam yagu mak mom lol lool waaye def naa ak dal daal cinquante Nah ans jurum fukki ak ñet dal def ak mom ndax lima leer bi mu ñew sanjara 1966 fekk na man amna naa ak ñet xamna ni mom eppalul fanweeri at waxtu san li fi ak ci bisu dimanche fekk mo fële ci sunu kër ndax day wax ni fi moy daara ji wala moy kër ga fala fekk sama wayjur ñu koy wax Mouhamadou Ngom sant yalla dem ci jàkka julli ji waxtu tàkkusaan ma dem wooye sama baay mu ñëw mu ni ko daal dama jóge Saalum laxas jëm boori Mbuur waaye ka ma jógee daf ma ne naa yam sànjara yàlla atte na nag dama ñëw pour nekk fi sama baay ni ma jëlal saag bi dugalal ko sa néeg boobu wallaahi maa ngi benn néegu ñax lalu gi tax yàgg nañ ca lool man ak moom euh, ñuy dem di dem ba ku ñuy wax sëñ Ibrahima Guèye imaam la fële tey ca Euh, Kaolack ak sëñ Ahmed si nekkoon fii ci Mbour nekk imam radiallahu taala anhum ak ñu bari fekk nu ca kër ga taal fa taalu daara ba ñu bari fa la ñu jànge ndax en 1966 Sandiara bu ñu masaa soxla kaamil dañuy dem dëkk bu ñu wax ngomeen fii ci ginnaaw wala luuli nja ñu doog leen a mën wàcceel kaamil waaye tey boo fi noonu téeméeri kaamil gunay amul fukki at ak juróom mën nañu ko jàng léegi loolu lépp ci mbaaxam la li des Eh, ci histoire bi kër gi bañ ko koy may boba ma nga suñu kër bi mu ñëwé boba commune rurale amagul borom dëkk ñoy may kër bi ko dagalé kër gi sama bàyyi nañ ko def ñaari kër ndax dafa yor daara toluni. tax kër gi tollu ni wallahi boba borom ma ngi gop suuna si waye jëlagu ko ñu jox ko fi bi borom kër bi borom toll bi jëlé nak suuna si ba nopi mu ñëw dëkk si. lu ñëkke won ci biir neeg la nak yalla diko magal bam ci ëtt bi yàlla di ko màggal tey ba mu ñëw ci penc mi alhamdulilah rabbil alamin xam nga ne place bii dañu amagul beneen waa na xat na tey ci bés bu mel nii loolu nag liggéey nitu yàlla moo toll noonu moom nag jógee na fi am na ñaari at ziar bi ñaar ñetti at ak ni defuñu ko woon ndax li ko waral mooy mbas mi ñu ngi ciy ñaan yàlla sax julit bu ci yàlla moom la ko yàlla jëna li ci des ak néew yàlla ko fi yàlla jële ñi ci tëdd itam yàlla yëkkati leen te ku ko yëgul sa yaram yàlla bu ko yëg yàlla bu fi yàlla lu mel nii moo téye woon li ñetti at ren nag ñu daal koy indiwaat ci ndigalu sëriñ mbay Sall alaaji euh, mi nga xam ne tey moo fi nekkal tey alaaji Daouda Camara di magam di sëriñam di mbokkam di dëkkandoom ñu yoroon diine ji ñoom ñaar sëñ Mbaye Sall toppoon ci ginnaaw alaaji Daouda def ko mag tey ak doomam ji ñuy wax alaaji Ibrahima kamara alxalifa toog tey ci deru baayam ak ay magam yi nga xam ne ñoo nekk ci kër gi nekk fii ba Jolof ak ndakaar ay mbokk yëpp ñoo waxtaan naa ne lii kat du lu ñu war a bàyyi muy sey loolu ñu bàyyi muy réer ndax li fi toll nii ci borom xam-xam ci ay mbokk ci ay nit ñu baax di teew di yendu sànjara ci ay autorité administrative autorité locale ak ay journaliste ak ñëpp bàyyi seen yitte tey Sénégal yëpp nekk benn point de rencontre mooy fan mooy sànjara lii bu ko alaaj Daawar Kamara liggéeyee ba yàlla yóbbu ko ci yërmandeem ëpp nañ ñu ñu fi seen ñu koy seetaan ba muy seey ndax ñoom yàlla dafa def du ñu kilifay di du ñu kilifay tarixa mais kilifay diine lañu mm-hmm. ndax man mii kër Sëñ Tuubaa féete waaye moo ma yar moo ma jàngal moo tax ma xàmmee farata ak sunna xàmmee xabla ba baxda kon moom nitu diine la woon waaye du nitu tarix rakam ju baax ñi mu fay di sëriñ Mbay saaliit wax dëgg yàlla ñëw fa Camara tegoon tànkam yokku na ko tey bu kamara ñëwaatoon xool dina gën a sant Mbay Sall sant njaboot gi njaboot gi nag Abdoulaye kamara ak euh, Alioune kamara ñooy seeni mag ne ci kër gi waaye uuf nañu Ibrahima di xalifa bi ak Ibrahima Kebe di rakam ànd nañu nekk benn ndax ba fi seen bay laxok legi ñu di ay doomi bay te musuma fe deg ben wax ne su amon mu yëg lolu ci mbax la kon imam lam doon liggey mel na ni niilut ndax sera kere bañ ko jëkkee jëkkee def nun ñimu jangal ci Ibrahima Gueye mo doon mak muni fallu mané ma ne am ah, muni ni ma nun ak ñom Sayar job ak ñom baysal Sall yëpp mënu jàngal nañ defal imam ben siar kere biñ ko def ben bay lañ fi rey ak ñaar fukki loy ciép jeexul dañ ko mujj jox waa dëkk bi tey dañ feeree ñeenti nag ak giléem ak ñeenti xar ak lu mat téeméeri ginaar te doy kon loolu mel na ni yàlla nangu na ko. baarakallahu sëriñ Fallou xam naa question bi mujj bi rek ndax jot amul yéen bëriwu leen jot yéen a war a dalal gan yi euh, góor gi def na la yonent bi sallallahu alayhi wa defoon mooy taal na daara jàngale. ndax lislaam ci xam lañ koy atte waaye tabaarakallahu tabax na néegu yàlla ngir jullit ñi di fa jaamu seen borom subhaanahu wa taala waaye li ma gën a yéem nag ci alaaji daawar wax nga ko seexul islaam la euh, nga ñëw dëkk bu mel ni Sanjara fekk fi ay ceddo fekk fi ñu gëmul sax yàlla ñoo xam ne bokk leen diine waaye nga fekk fii ay turux ku ne xam ne ni mel senegal ñii gëm Cheikh na Ahmada Tidiane wéeru ci kaw Seydi Hadji Malick ñii gëm Cheikh na Ahmada Tidiane wéeru ci maam Abdoulaye Niass ñii gëm maam Serigne Touba radiyallahu taala wéru ci moom ñi gëm mam Limaamu Laay waaye moom mu ñëw indi waxtasimu bi xablillahi jamian wala tafaraqu lan mooy secret góor gi ci loolu yow mi dund ak moom waaw secret góor gi moom baax la rek xam nga mbaax moom mënul passé mbaax ndax bu fekkoon ne day xaajale du mel nii waaye loolu nga wax rek aaya boobu suñu borom wax ci la jàpp jàpp leen ci buumu yàlla gi daal te bañ a tàqalikoo wallahi bu woote woon ci këram gii ni bu benn julit ñëw ku gëm rasulaay bu fi ñëw chrétien yi laa woo kër gi doo fi xaj wallahi mbaaxam la nag waaye dina ko añee euh, li ma la bëgg a xamal daal man daal mënu ma ni kii ku gën baax nag li Seydi Asi Maalik wax rek baax daal du paase yaa baax te ku baax la ndax man daanaka sax mutuma ci moom seede waaye daal wallahi mënu ni jàkk ni kii ku gën te nag Euh, la mu la mu ñu la mu ñu nàmpal mm-hmm. li nga gis nii nu koy tari mm-hmm. lam nu lam nu jàngalu ko fuuf mm-hmm. waaye dañuy nam na bi rek di jéem a tari asalaamaaleykum mbokk jullit yi comme ni leen ko xewoon rek Aïnou Mady TV mi ngi fii ci Sandiara euh, ci ziaru Ashura 2022 mu tombek 1444 ci hijra bi ñu ñëw fii ci kër alxaaji Daouda Camara radiallahu taala anhu fekk fi njabootam comme li leen ko waxee woon rek incha allahu taala lépp lu fi njariñ daañu leen ko génneel wan leen ko foo leen mën a nekk ci àddina tey nag ñu taxaw ak koo xamante ni kenn la ci njabootu alxaaji Daouda kamara ñu koy wax imam Massar Mbaye di doom ci sunu baay As Mbaye bi nga xam ne kenn du ko présenté ci lislaam bi waaye moom it mu ñëw taxaw taxawaayu woy waajuram ci jàng ak ci jàngale imam Massar Aynu Maadi ñu ngi lay nuyu. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi delloo nuyoo mbokk yi nga xamee ne ñoo faral di seetaan lii di. TV Aynul Mahdi ñu ngi leen di nuyu di leen ziare yéen ñëpp na si bis bi ñu nekk nii muy Ashura bu ma njëkkee si ziar li arab yi wax rek az-ziyaaratu ziyaadatun heure boo bëggee dolleeku si yàlla heure boo bëggee dolleeku si àdduna del ziyaara ki yàlla nangul del ziyaara ki yàlla tànn kon mu mel ni ne ki jóg dem di ziyaara ji dafay nemmeeku di yokk mbokkoo ak relation ak ak ànd waaye mi ngi jaamu yàlla ndaxte mi ngi seeti ku yàlla gërëm ngir moom itam mu bokk sa gërëmaane googa kon ziyaara moom jullit da koy war di def da koy war di saxoo da koy war di e, bàyyi xel surtout sa fa muy jëm bu gisee place ak maqaama ak martaba bi nga xamee ne yàlla teg na ko foofe war nay ronu ci suufu keram ngir mu mën a watt si meññeent ya gannaaw ba mu kerloo sa ker ga baarakallaahu mbokk yi yaakaar naa ni kon képp ku fi ñëw eh, di nga màng yiw boo xam ni yaa ngi ko jëlee ci ziyaara dina la dolli sa wàllu àddina mais dina la dolli ci wàllu yàlla ndax yaa ngi ko tëbbee ci barke nitu yàlla yàlla nañu ko yàlla nangul def imam Massar yàlla na yàlla fay la yiw ci témoignage yu am solo yi ak jàngale bu bi nga fi jàngale Aïnouma TV ñu ngi lay jaajëfal waaye lan ngay ñaanal nag télé bii di Aïnouma di TV. Euh, Aïnul Maadi moom euh, nañ ko yokk ñaan rek waaye tuddee na boppam loo xamee ne moom la muy am barke ba am na ko pare ndax bu fekkee ne cheikhana wa wasilatana abil abbas ahmad ibn muhammad tijani moo jógee ko foofa kon lu jël ay Aïnul Maadi ñu tuddee waat ko dañ koy delloo waat laaf ko si seen na amane tijani kon nak yalla nako yalla defal ak avancement man muju nek télévision bu maga mag bo xamee international la du yam ci li rek région yi waye day ubbi téléem comme ni yenen télé yi nekkee fi ci Sénégal waye mu nek international bo xamee monde bi ñepp boo koy seetaan ndax programme bamuy doxal ndax nit ñi mom programme lañuy top yalla yalla may leen ñiko ko séq te moom ko te di ko doxal yaatu xel ak xalaat bu toll ni bis buñ avancé tuuti du sori ñu dégg ay nul maa di fépp si àdduna والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته امين وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ميغي نونو كون غاي نيو توبال لنكو ان شاء الله سي سين تيليفزيون عينو مادي تي في فيك زيار بي دي جيخ في نديرين دال ني لنكو генيل دا نيو لاج بروم خام خامي نيو جوخي اي تيموناج سي غورغي واي جانغالي لان مو ورال بيس بي نده ليپ سي شريعه لنكو تنك اك سي امام مسار جيرجف السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Aynou Mady TV. sa yitte yow taalibe Cheikh Sidi Ahmed Tidiane bi man Oustaz Habib li ma lay wax mooy télévision la boo xamante ni sa yitte na nekk ci moom sa abonné na nekk ci moom waaye sag njàppandal na nekk ci ñu moom ndax lan nga bégale ko Maulana Cheikh Sidi Ahmed Tidiane.